audu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci juróom benn fukkeelu jotaay ak ñaar ci téereb xalim ak leer jotaay bi mooy bi mujj ci xasida ak Ikfini xasida ak Ikfini bu nu seetloo gépp may goo xam ne sëriñ bi tudd na ko ci gu ko yàlla defal turi yàlla wam koy booleel day dëppook mbir ma maanaam la nga xam ne wax na ne yàlla defal na ko ko day dëppook turi yàlla wax xam ne ne moo jëf jooju ñooy dëppoo bu yàlla ubbil na ma bunt yi day jëfandikoo baatub yàlla mii aji ubbee ji turu yàlla mi aji ubbee ji muy fataax noonu la koy toppee Euh, mooy lu mel ne li leeraloon rek ci wàllu aj Makka googu muy turu Muqtadir ne ba tey xasida gi bayit yëpp baatub Allahu la ko daanale mu mel ne xasida la koo xam ne day tënkit may yi ko yàlla defal mu boole yëpp di ko tudd di ci sant sunu borom xasida gi fi nii ay njariñam xasida la gu bari njariñ lool xam nañu ñoo xam ne sëriñ bi moo leen digaloon ñu di ko jàng ba digg leen sax ñu mokkal ko ku mel ne wayjuru Cheikh Mouhamadul Fadil muy soxna Awa Bousso sëriñ ma muur maamun ña nettali na ne soxna si moo ko wax ne ko sëriñ Tuubaa dane ko woon na nga fexe ba mokkal na xasida ak fini ndax boo ko mokkalee ëllëg ci jibay yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngay dekkee soxna Awa nee ñu day ku bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lool sëriñ Bousso Ilimaan nee na waajuram soxna Faati Kanni soxna Faati Kanni Mbàkke di taawu sëñ Maam Mor Jaara moom ak soxna faat Dia muy taawu sëriñ tuuba ñoom ñaari soxna Faati yooyu sëriñ bi joxoon na leen xas dëkk fi nii digal leen ñi di ko jàng ne leen bu ngeen ko dee jàng fu ngeen bëgg yàgg di ngeen fa yàgg ba tey ndongob sëriñ Saaliw bu tudd soxay bu ndooy nee ma dégg na ci sëriñ Saaliw mu wax ne xasida gi fi nii mokkal naa ko laata may dal jàng am na sax ci nettali boobu ñuy wax ne soxna Faat Jaxate da ko daan jàng suba ngoon sëriñ Saaliw di ko dégg ci moom ba mokkal ko jële naa ci sëriñ Amdi Kan moom mu daal ne woon ku taqook soxna Fat Jalool mu wax ne sëriñ Basiiru doon na ko nettali ci ik fi nii moom sëñ Amdi Kan sëñ Basiiru ne ko am na bis taalibe yi doon werante ci xasida yi am yàllaahu gu ci ëpp doole ñu dajal àddiyee jox ma ngir ma laajal leen ko sëriñ Tuubaa bi ma demee jox àddiyee ja sëriñ bi mu ne ma Basiiru ana luy say tànk ma ne ko taalibe yi ñoo doon laaj xasida yi am yëllaahu bu ci ëpp doole xasida yi daanoo yëllaahu sëriñ bi ne ma xasida yi am yàllaahu gu ci mel ni si ndiidi moom ku koy jàng day am kaaraange ba daa mel ni kuy nelaw ponkal ma gën a am doole yore aw di ko saytu bu dee gu mel ni ak fii nii nag moom bi ma ko bi ma ko bind daa fekk li ma saa borom lépp ma jot ci moom de ku koy jàng day mel ni ko dugg ci tata ay soldaar wër tata ji di ko saytu tata daal mooy lu mel ne xeetu pare rek fu ab président di nekk nga xam ne bu xasee ba dugg ci biir armée ba armée baag yëpp ñu nga wër pale ba fexe ba yor kaaraangeem dara du ko lor sëriñ bi day misaal ik eh, fii nii ku koy jàng ni muy amee kaaraange noonu noonu am njiitum réew wala njiit lu mën a doon di amee kaaraange ne ci biiru pale la wër pale ba lépp ay takk dañ ne fa di ko saytu noonu lay mel ci kaaraange kon foofu la ñu yemale li nu indi woon ci xasida gi fi nii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.